mooy lii muy muy bokkam borom Tuubaa yëpp rawatina njëwri Cheikh Ibra Fall gi ndigal laa bàyyi ko nag ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw ci moom mooy leeral li wër corniche bii ñu ku fi yor place ku fi yor moto ku fi yor am mat sëriñ bi nee na nga dimbali ko jël ko balaa àjjuma la la la la la fa la la la la la la ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha la la mbokk fi teew yëpp di mbokk yi ñuy teewlu si turu am Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di jottali ay cant ak i ngërëm mu jëm si mbooleem njabootu Cheikh Ibrahima gi si li nu weesu lépp ak fii nu toll sëriñ bi di am yaakaar bu baax a baax si lii nu dëgmal. muy li nga xam ne ni ko sëriñ bi waxee rek moo nu fi indi te bàyyi nu fi muy muy ndigalul sëriñ Touba noonu ko sëriñ Mamour waxee rek ndigal li moom bi mu rotee yaatal nañ ko ba mu àgg fu sore sore ndigal li nag mooy liggéey boobu sëriñ Mamour doon wax muy lu jëm si wàllu kornis bi muy yaari wet yi nga xam ne ñoo seq tali bi. li tàmbalee fii si post contrôle bii si Daaru Marnaan ñëw ba corniche Serigne Cheikh Saliou jàll ba corniche Madiana dem corniche Daaru Moussi dem corniche Guédé ñëw corniche yoon Tindodi dem corniche euh, Ndama euh, di gaarasu Daara Jolof dem corniche Ndamaatu ba ñëwaat fii si corniche jaar corniche yoon daaru ba ñëwaat fii si corniche fi nga xam ne fi lañ tàmbalee woon muy fii si poste contrôle bii si daaru marnaan sëriñ bi wax ne li nga xam ne moom moo nekk si yaari wet yi nga xam ne ñoo seq tali bi yoon wi yoon wi nu godorone mbooleem li fi nekk te wur faa nekk nu dindi ko dafay mel ne li fa nekk lépp sax wur faa nekk ndax foofu cent la boo xam ne bii sëriñ bi moo ko fàggu woon ngir bëgg ak yaatal ak ak taaral ak ak jàppandal si mbooleem loo xam ne ab dëkk yitte woon na ko rawatina Touba gii waaye nun moom loolu lépp sax sunu yoon newu si sëriñ am di daal dafa jot ndigal Cheikh Modou Mountakha wax ko ne ko na ko leeralal yaari wet yooyu ba mu leer mooy lépp lu fa nekk nañ ko dindi ni ko sëñ Moustapha doon limee rek muy bu dee ab place la bu dee ab garage la bu dee cantine la bu dee magasin la bu dee ay oto yu fa taxaw la ak lu nu fa mën a def rek boo bàyyi kër yi daal kër gu ne am nga ñaari mètre ci sa buntu kër yoo xam ne sëñ bee la ko jox waaye lu weesu ñaari mètre yooyee leneen lu sa tege rek am sëriñ bi am na ndigalul loolee mu jëlee ko fa ba mu set wicc te bëggatul bu ko weesoo kenn defaat fa dara ndax jël na matuwaay yi mu war a jël yépp ngir loolu bu nu si bàyyikoo na mu bëgg dëkk bi mel ni rek mu mel nii bu nu bàyyikoo si liggéey boobu nu war a na dem si kamb yi nga xam ne moo nekk si ndaamaatu kàmb ya nag dafay kàmb yoo xam ne kàmb yu yaatu la mu am ndox mu bari nekk fa nag ndax nap doo bi dafa feeñ ndox mi léegi léegi dina yéeg wax nañ ni ba am sax taxawaayu juróom-ñetti mètre loolee nag kilifa ya fa sëriñ taxaa yebaloon ngir ñu sàkk ay pexe si loolee ñoo dellu si fi moom xamal ko ne ko kàmb liñ si bëgg mooy nu manque ndox mi ba mu set wicci tibb la nga xam ne moo nekk sa suuf muy ban ba génne ko daldi wuti suuf suy dund nag fecc euh, sol ko ba mu feesaat ba am mm, ba tolloo ak niveau ak li nga xam ne mooy pegg yi loola ndigal loolee bu nu jógee ci corniche bi ci ndigal loolee la jëm bu soobee yàlla su nu jógee foofee sa ndaamaatu ci la dugg nag marché occas marché occas it li si sëriñ bi waxoon mooy mbedd mii jóge ci station bii ci 28. boo ko seetee mbedd moomu mi ngi yaatoo ñaar fukki mètre ak juróom-ñett wax nañ ni loolu sax a tax nu tudde foofu vingt-huit muy vingt-huit mètres mbedd moomu boo ko jëlee jaar ci biir marché bi romb poste contrôle bi daal di wéy ba ba ba ngay ba ba ngay mbëkk sa kër sëñ daam Dramé ka wax nañ ni diggante boobu vingt-huit la sëriñ bi dafa bëgg vingt-huit yi dara du fa ne li sës si peg yi ñaari peg yi nga xam ne ñoo ko séq lépp lu nekk si diggante bi wax ne nu jëlee ko fa ba mu set wicc moo xam mbaar muñ sës la moo xam magasin buñ fa def la moo xam taabal juñ fa teg la moo xam lu nu fa tabax la donte ab trottoir nu dindi ko ba nga xam ne day set wicc waaye bu nu dindee loolu ba noppit mbedd moom yi jaar si digg marché bi dafa am ay mbedd yu si soqi ko yii jëm ndeyjoor yii jëm càmmoñ mel na ni yi jëm ndeyjoor danoo génne ji fa ñuy wax njóobeentaay yi jëm càmmooñ génne si fii si wetu kër euh, kër soxna mbenn euh, soxna mbenn fàllu mbedd yooyu it day mbedd yoo xam ne dafay mel ne dafa mujj dem ba sakk ndax ay cantines yu ñu bootal ci la nga xam ne moo fa nekkoon ba mbedd yooyee ñaari nit bu nu fa dajee kenn ku ne da ngay wetu ngir sa morom mën a jàll mbedd yooyee sëriñ bi wax ni la fa nekk te wuru faa nekk nu dindi ko moom it ba mu leer naññi ba nga xam ne daama oto bu fa jaaroon tey jii mën a jaar romb jàll te du indi benn jafe-jafe loolu ndigal loolu mooy ndigal li nga xam ne moo jiitu woon si ndigal li Cheikh Modou Mountakha jox sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ak njabootu maam Cheikh Ibrahima ngir nu jëfe ko sëriñ bi wax ne ndigal yii nag bu jàllee am na yeneen ndigal yu si topp yoo xam ne junj na ko waaye da dafa tuddoon nii nan àggale lii ba noppi suñu ko àggalee ba noppi nag toog fi wetam dana jottali nag ndigal yi topp si yooyu ndax xam naa ni ko sëriñ bi bëggee dafa bëgg nu nu toppaatal ko nag dëkk bi ba dëkk bi mel na nga xam ne noonu la ko borom xalaate woon te loolee Baay Faal yi rek mooy njabatu Seera Faal rek la tànn ngir ñu defal ko loolee sëriñ am ni nag wax ne ndigal la loo xam ne lu mu fonk ndigal lu rëy la amul lenn ndigal lu mu cof waaye ndigal lii nag day ndigal loo xam ne ndigal lu rëy la mu bëggoon njabootu Cheikh gépp àndandoo jiit kenn ku ne def ko muy sa itte kenn ku ne wuy si si woote bii ngir li sëriñ bi bëgg nu defal ko ko si dëkkam bi ndax naka jëkk Cheikh moom mooy ñagub yoon wi mooy ñagub dëkk bi kon nag li sëñ Tuubaa bëgg si dëkk bi Cheikh Ibra Fall nga ko ko mënal loolee tax sëriñ Touba sant ko maam Cheikh Ibrahima sëriñ bi bëgg mbooleem njaboot gii nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Fall ñoom ñëpp ñu jekk nanu daa def rek nanu baaxoo ndax ndigal lii buñ say demit dañuy bàyyi koo si ndigal muy fee ñu nekk sa liggéey ba sa Mbàkke dem sa ndigal loolee bu nu sa wàññi dañuy delluwaat si ndigal rek ndax ndigal moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi sëñ bi wax nu yaatal woote bi tey jii nag dafa santaane woon ci ndigalu Cheikh Modou Mountakha lu jaar Cheikh Modou Basir nu dem ànd ak njabootu Cheikh Rafal gi wër liggéey bi ba xam dayob liggéey bi ngir gannaaw agsi na ayu bis rek a si des nu mën a xam nag ñëpp nag bu nu jógee amuk déggoo ngir na ko sëriñ bi bëgg nu defe ko noonu